et il fallait que mu tombe ci loolu rek la et xam nañu ko et amul lenn lu ñu mën a reprocher Walfadjri ci couverture bi mu def ca Mbacké boo xoolaatee la mu def lépp benn par benn ba mu jeex journalistiquement amul lu ñu mën a reprocher Walfadjri et du ñu nangu nag kenn ñëw naan li ngeen wax wala du ngeen wax lii liberté de la presse dafa nekk une réalité et buñ ñu ko joxul dañ koy foqati dañ koy nangu liberté de la presse

mouvement de foule doo segg maanaam kii xale la wala kii mag la da ngay jël lépp ndax boo booy segg raté information ba te public bi moo soxla information bi dañ koy jox information bi te it CNRA dafa kaddu wax nañ ko fii de jeex na mais dafa violé loi bi CNRA dafa violé code de la presse bi article 210 bu code de la presse parce que tey jii nii balaa mu doon coupé Walfadjri waroon na joxe mise en demeure joxe avertissement joxaan bu pour doog wol dagg Walfadjri amul droit sax dagg Walfadjri te loolu yëpp amu ci mais nag man li ma si jaaxal CNRA conseil la mais conseil boo xamante ne maanaam ci ci ci ci ay waxtu yu gàtt réunir nañ conseil bi ba décider dañuy dagg Walfadjri ci ay maanaam loo xam ne ay simili la xanaa conseil bi ay jinne la ñu lay bañ e tey na dakk na dakk tey bu fi amati bu fi amati bu fi amati bu kenn nangooti ñu fi dakk benn signalu télévision bu kenn nangooti ñu fi dakk benn signalu rajo loolu nekkul yoon li ñu war a dakk duñ ko dakk gis nañ fi télévision yoo xamante ne suba ngoon jot benn benn kii la ñuy wax mais kenn du ko dakk di def propagande saa su kenn dakku ko wal fajri dootuñu nangooti kenn di ko dagg koo daggati ñu dañoo taxaw fii jàmmaarloo ko ak moom